critères de sélection son basés sur nos valeurs tey jii nii dañuy woowaat femmes yi ci revalorisation africaine surtout. Mhm. dafa am li nga xam ne tey boo nee jigéen rek dans le normes société bi loolu lay xaar muy tey jigéen bu am jom am fulla am fayda ba pare jox cër boppam. di liggéey di daan dooleem donc euh, critère de sélection yu yooyu la selon domaine bu ci nekk donc dañu am ay catégories yu bëri on la catégorie des femmes références ñi nga xam ne mooy suñu mag ak yaay yi nga xam ne mhm. commencé nañ seen carrière boobu fekk na sa xëy na ñun exeguñu ci àdduna bi mais tey ñu fekk leen fi ñuy wëyal seen liggéey te buñ la nettalee seen démb dara du ci ñaaw mhm. duñ la nettali dara ba nga ne ah kii xeeb naa ko te tey boo leen mettre au devant de la scène di nga gis benn ndaw boo xam ne mi ngi am passion comme moom lu muy def te dina ko mën a servir de référence parce que tey boo xoolee loolu la ñu ñàkk suñu société parce que à l'école on ne montre pas no femmes on ne montre pas l'Afrique leneen occidentaux yi lañ ñuy won ak yeneen réew yi yeneen femmes lañ ñuy won en en guise de référence dëgg la jigéen yëpp baax mais nit ki boo koy jàngal da koy jàngal li nga xam ne moo jógee ci moom mm-hmm. yaakaar naa loolu lay gën a absorbé que li nga xam ne dafay jóge feneen ndax lu jóge feneen dina am lu ci rax loo xam ne ñun moomuñu ko donc critère de sélection yi loolu la on remet en valeur la femme dans dans dans tous ces aspects nga xam ne kii buñ ko présenté ci àdduna bi nit yi yeneen euh, nationalité ñoom ñooy am envie fekki suñu ñun suñu culture mm-hmm. Mm-hmm. alors